si yàlla def ne on va se présenter candidat man lu ma lu ma ci sori c'est la constitution qui décide si Macky se présente candidat et puis vous, vous pensez que jusqu'à maintenant à neuf mois ou bien dix mois des élections comme ça oh, nous on va choisir un candidat euh, comme ça comme ça à neuf mois des élections sans Macky Sall d'après mes pressentiments quoi vous pensez que est-ce que yéen mën ngeen ko xalaat APR pour rester jusqu'à neuf mois des élections amuñu benn candidat bu ñu bu ñu prononcé wu ngeen parce que lan nous on attend la constitution constitution am nañu yaakaar ne Macky Sall dina présenté wu te bu boobaa dinañ ko battre campagne te dinañ gagné élection yi parce que Macky Sall lu mu fi def ci dëkk bii ci réew mi ku naafeexul nga xool tous ces réalisations lu fi amuloon depuis l'indépendant Macky Sall bu mu ñëwee il a changé ce pays nit ñi nañu bañ a soxor ñu bàyyi Macky Sall mu yeggal <laughs> ñu may ko beneen eh, mandat d'accord sama joolaa joolaa bi d'accord ma man joolaa bi d'accord